Boubacar Seye ñu ngi lay nuyu. am mbégte lool dalal la ci réew Rewmi FM tey yow yaa jiite ONG bi di Horizon Sans Frontières euh, Boubacar euh, am na ay doomu Sénégal euh, yoo xam ni dañoo demoon ca Pérou wax nañu ci njeextalu ay bés bi ne danañu leen dellu dellusiwaat Pérou nag di moo xam ni bariwul lu nu koy dégg ci wàllum migration ndax dëkkub Amérique latine boobu ak yeneen dañoo nekk yoo xam ne ci la migrants yi wëlbatiku. yokku euh, bu dee waaw lan moo ko waral. waaw malheureusement euh, dëkku Amérique latine yooyu comme ni nga ko waxee l' Amérique centrale l' Amérique latine yooyu yëpp tey dafa mujjee nekk euh, des zones de destination des pays de destination ci yenn candidat immigration clandestine. li ko indi na moom mooy parce que tout simplement Europe dafa fermer ses frontières Europe dafa mettil am nga xam moom la teg pour l'obtention de visa hmm. donc yooyu yëpp tey moo tax euh, les candidats à l'immigration clandestine di contourner d'autres zone malheureusement euh, Amérique latine l'Amérique centrale mu nekk ay zones yoo xam ni pratiquement damay wax ni c'est des zones à risque c'est des zones euh, yoo xam ni dafa dafa dafa doy parce que foofu yeneen mafia moo fa nekk hmm. donc euh, j'en profite aussi euh, li ëpp solo mooy sensibiliser alerter Euh, ñi nga xam ni dañu jóg ci zone yooyu di fa dem pour ñu def attention parce que lu ci bëri c'est des zones de violence endémique gis nga le cas du Brésil euh, gis nga le taux d'homicide yi fa am par jour pratiquement ci gën a euh, yu gën a kii ci àddina bi la baneen bi aussi Euh, dans certains pays boo xoolee l'indice de sécurité et l'indice de criminalité euh, dafa très élevé des pays comme le Guatemala des pays comme Euh, Pérou ak tout daal partout foofu ci zone yooyu daal dafa xaw a doy waar ba nga xam ni daal euh, nañ ci def attention gën a sensibiliser gën a alerter euh, pour candidats yi nga xam ni ñoo fay dem maintenant concernant le rapatriement comme ni nga ko waxee l'expulsion yooyu ngay wax na ñun du ñu rafetlu moo tax il faut que les états l'état du Sénégal en particulier mm. alors mu jël ay matuwaayam pour mën leen assister parce que comme ni ma ko waxee zone yooyu baaxul parce que suñu deful nank rek ils seront entre les mains Euh, des gangs euh, de la mafia euh, dinañ leen sonal te lu ñu yore dinañ ko jël. Hmm. est-ce que bu weesoo loolu am na xëy na lu Sénégal en tant que réew sekk ak yooyu la réew yu mën a may doomu sénégali bu nu muccee ci lii nga wax nii ñu mën faa dund dund gu dal. waaw mais xam nga loolu moom je crois que lu ñuy xoolaat la comme ni ñu ko waxee sànq rek destination c'est de destinations nouvelles. Euh, boo xoolee sénégalais yi dañ fay dem sax pas pour demuñu fa pour toog fa mais zone de transit rek dañ fay nëgandiku euh, pour daw ndool pour daw xam nga migration pathologie la tey au Sénégal euh, ñëpp a bëgg a tukki ñu ci bëri nag dañuy dem pour làqatu foofu foraatu dara en attendant ñu continuer seen projet migratoire donc ba tax na rek Sénégal moom war na saytuwaat saytuwaat ay doomam yi nekk zone boobu parce que boo xoolee ñu ci bëri euh, amuñu benn assistance euh, même au niveau des services diplomatiques et consulaires boo xoolee boo interrogé dañ lay wax ni amuñu benn amuñu benn assistance. Hmm. gis nga le cas ñi nekk Brésil le cas ñi nekk Argentine toujours da leen di déglu ñuy jàmbat ci côté yooyu. ba tax na loolu yëpp nañ ko xoolaat parce que faay bi nag fi mu jógee moom mooy en matière de migration pour des raisons économiques euh, amul des lois universelles c'est-à-dire que chaque pays foofu la faay bi nekk. moo tax tey il faudrait un plaidoyer sur le plan international hmm. pour que tey ñu mën a changer loi parce que ces lois sont obsolètes ci contexte bi ñu nekk la aujourd'hui c'est la mobilité des gens qui se trouve restreinte pour des questions sécuritaires hmm. loolu moo tax Europe tëj loolu moo tax ñeneen ñu bëri tëj loolu nag tey lu ñu war a xoolaat la pour réduire les risques à des proportions tolérables hmm. est-ce que doomu Sénégal yooyu war a jógee Pérou am nga ci ñoom ay xibaar non à part ay xam nga généralement c'est le flou total l'absence de politique migratoire Euh, fekk actuellement duñ ci communiquer yéen la ci communiquer ak ay parent yoo xam ni dañuy woo gisuñu sax seen i mbokk pour la plupart dañuy wax ni euh, déggatuñu amatuñ benn nouvelle donc ça c'est le cas de relancer le débat sur les disparitions mystérieuses da toog ba chaque rek nit wala di jooy sama lii wala demoon na fii fële la tàggoon fële leen ko mujjee gis mais généralement l'État ne communique pas sur ça donc c'est le flou total donc c' est un silence radio mm. loolu tamit ñun rafetlu nu mu mënti mais rek jigéen di communiquer dafay baax mais mm. loolu amul gisoo boo xoolee yu demee ni su amee tout le monde se replie sur Horizon sans frontières malheureusement qui n'a pas les moyens de l' État. Mm. donc liñ ci mën rek mooy li poser le débat alerter relancer. et gis nga li muy jural yëpp day comme problème. Mhm. alors Boubacar euh, ñëpp xam nañ ni émigration clandestine moom taxawagul firnde gi doy na ci euh, gaal yi suux bés bu nekk ñu di ko indi ñu ànd nag ak seeni euh, kon njaxtal muy ay bakkan yu bari yuy rot yow concrètement lan nga gis comme solution ngir mën a dakkal phénomène bii di émigration clandestine. waaw xam nga tey la gestion de ces flux migratoires là dafa nekk. Euh, un des plus grands défis hein, auxquels les États sont confrontés ci millénaire bi ñu nekk nii euh, dañuy regretter sax un discours purement politique une pathologie boo xam ni qui fait que au, au lieu on ne regarde pas devant nous regardons dans le rétroviseur parce que tey euh, je crois que euh, c'est c'est c'est il faut recadrer le débat dans le contexte géopolitique c'est la mobilité croissante des populations loolu foofu la àddina nekk c'est la mondialisation foofu la amee faille donc le discours est politique tey la question qu'on devrait se poser euh, que signifie la migration au vingt-et-unième siècle la gestion des flux migratoires dans un monde mondialisé mais loolu moom moo amul c'est un discours politique donc il faudrait pouvoir redéfinir les questions identitaires au vingt et siècle loolu moo tax on a construit la migration autrement euh, sur des questions identitaires Europe mu ferme ses portes l'Europe se barricade avec des avec des avec des des, des, des frontières euh, physiques du moins barricade ces frontières sur le plan physique euh, politique et, juridique mu indi lii mu jug ni tey je crois que nag il faut ñu xoolaat ñun ce qu'on appelle euh, le paradoxe libéral il faut lutter contre ça pour mën a résoudre les problèmes de la mobilité parce que tey euh, lépp loo xam ni dañu wax ni dafa baax économiquement euh, dañ ko juger dangereux pour des raisons sécuritaires donc la mobilité des gens est restreinte pour des raisons sécuritaires loolu moo indi tey cette situation qui tue la jeunesse africaine. Hmm. tey soo rappelé woo entre 2014 ba 2013 il y a eu plus de 15 326 morts dont 71 pour cent en Méditerranée loolu loolu loolu boobu chiffre moo li am euh, entre 1988 et et 2009 en 20 ans en euh, il y a eu 15 000 morts ñu ngi ci ñetti at 15 000 15 326 en 2020. il y a plus de 2300 morts te kenn mënu la wax ni dee en terme de valeur absolue tey jii gis nga naufrage commencé waat na parce que géej gaa ngi commencé tàng et là aussi il faudrait que ñu jël ay matuwaay sinon mais toute la jeunesse va se décimer en Méditerranée je crois que il faut que ñu xoolaat yooyu yëpp dafa war a nekk un débat de fond alors pour ñu teg des stratégies pour réduire les risques à des proportions tolérables mmh. il faudrait aujourd'hui une nouvelle gouvernance une nouvelle gouvernance intégrée des solutions intégrées en matière de migration internationale. Mhm. Europe euh, ngir xëy na mën a indi geneen euh, xeetu solution ci euh, jafe-jafe yooyu nga xam ni tëju gi mu tëju mi ngi koy teg ñenn ñi rawatina ak doomu Afrique yi ne lu mi ngi def loxo ci poos di génne ay koppar di ko jox réew Afrique yi ngir ñu taxawal ay programme yoo xam ni mën naa tax seeni doom toog fonds yooyu moo la yóbbu woon daanaka ci kaso bi barki dem ba dégg nañu Irène Mingasson mi nga xam ni moom mooy ambassadrice bu ci ay kàddu wax ni yow ba ngay euh, wax loole xamoon nga la la ca mën a fekk noo jàngatee génnam googa waaw xam nga <laughs> Irène mi nga son xëy na euh, euh, moom ci waxam sax elle s'est même pas rendu compte que moom dafa insulter lu Sénégal daf leen a xas parce que li mu bugg a wax foofu de façon très subtile mooy liberté expression amul Sénégal kon Boubacar xamoon na lii la ko ci fekk mais bi mu koy wax dafa doon wax pour plaire pour plaire aux autorités Euh, wax boobu metti na ñu bëri Europe mënuma la wax bi ma ko transmettre les journalistes européens qui m'ont interrogé ba ñu sax euh, non seulement euh, Irène Mingasson doit des explications à l'Europe parce que tey en matière de moom xam na ni la liberté d'expression est permise sous toutes ses formes d'autant plus que euh, liberté d'expression d'un citoyen européen qui demande la reddition de comptes sur des fonds sur des fonds judiciaires qui demande une question d'économie politique alors que xale yaa ngi dee ci géej gi mu ne kat xaalis bi fi Union européenne dugal ba pare nag may fàttali ni c'est l'argent du contribuable européen parce que xam na sénégalais yi africains il faut ñu yeewu parce que ñoom dañu foog ni seen xaalis bopp la ñuy jël di ko déedéet c'est notre argent c'est l'argent du contribuable européen moom la ñuy indi Afrique man am naa droit en tant que doomu Afrique bokk tamit fële la ma jóge fële kon war nañu laaj xaalis boobu fu mu jóge loolu la ñuy def c'est des questions sur ces fonds fiduciaires la parce que xale yaa ngi dee xëy na nag moomu loolu yëngalu ko parce que ñii dee ay doomu Afrique lañu man nag man nag loolu na ça ne me laisse indifférent parce que mënuma tëdd di nelaw ay xale dix huit ans dix neuf di dee ci géej gi ñun loolu la ñu wax kon non seulement moom elle doit des explications à toute l'Europe qui est choquée mais aussi elle doit des excuses au peuple sénégalais parce que moom euh, tey la mën a wax euh, un mode d'expression à risque mais bi Charlie Hebdo di saaga yoon ci Al Mohamed fu mu nekkoon est-ce que waxoon na mode d'expression à risque alors que moom elle vit dans un pays à quatre-vingt-dix pour plus de pour cent musulmans kon je crois que yëpp africain yi la hmm. yëpp africain yi la moo tax euh, euh, euh, l'Europe est choquée te je crois que moom sa posture là est différente de la posture des députés du Parlement européen yi nga xam ne bi affaire bi ñu ma téye ils se sont approchés de moi bi ma génnee ñu lii dootu fi amati te nous nous allons saisir l'Union européenne parce que mënuñu d'accord un citoyen européen ñu koy toroxal parce que dafa laaj xaalis bi Europe di dugal muy ñun suñu xaalis ñu koy toroxal fii benn dëkk bu mel ni Sénégal. Mhm. donc dañ ils ont même parlé de dictature. loolu moo tax nag loolu tey je crois que loolu dina fi def mais il faut que sénégalais yi yeewu ni Iran mi doxul lu dul intérêt ñi ko fi teg. Hmm. parce que je rappelle que euh, elle cherche à plaire. je rappelle que Irène mi nga euh, euh, le Sénégal dafay dugg dans une nouvelle ère géopolitique géostratégique xale yaa ngi dee ci géej gi licence pay yi dégg nga liñ ci wax la pêche industrielle écraser la pêche artisanale nappkat yi mënuñu am ñoom ñoom am nañ ci une part de responsabilité léegi nag sénégalais suñ dafa naan gis nga euh, pétrole boobu ak gaz boobu ci génn du ñu gis dara loolu moo tax muy jéem a neexalaat ak di wax lu neex pour que ñoom ñu mën a ngett li fi nekk je rappelle que l'Europe a un modèle économique l'Occident du moins a un modèle économique énergivore tey jii nag il faut que sénégalais yeewu gis nga le Sénégal su liggéey soxlawuñu xaalis boobu nañu liggéey parce que l'argent là ne profite pas aux ayants droit hmm. ñun question boobu la ñu posé nañu leeral xaalis yu ñuy dugal fu ñu ko teg loolu dag duñ ci mos a génn loolu je crois que c'est l'objet d'un débat dans toute l'Afrique xam nga man waxuma Sénégal dans toute l'Afrique laa wax ni xaalis yi ñu dugal alors ñu mel ni ay yeneen mën nga sol nag de de insulte les Africains loolu nag moo fi war a jeex. Boubacar euh, ba tey ci wàllu saafara yi réew Afrique yi mel ni Sénégal lan nga gis comme programme bu weesoo fonds yooya lu ñu mën a taxawal ngir dimbali seen ndaw yi ndax fonds yooyu moom bu ñu la déggee xëy na am na yu bari yu ca laxaso waaw xam nga tey euh, dama wax ni <clears throat> euh, Afrique dafa war a jóg jël en charge sa jeunesse soixante pour cent des Africains boo xoolee ont moins de vingt quatre ans. euh, le chômage des jeunes dépasse en moyenne les 35 pour cent en Afrique euh, am na démographe ay études yu génn ne en 2050 pratiquement 35 pour cent des jeunes ci àddina bi ay africains ay doomu Afrique la ñuy nekk alors que cette population était de 15 pour cent en 2000 maintenant cette spécificité dafa war a nekk une une donne une donnée essentielle pour l'avenir du continent donc vous conviendrez avec moi que tey nos défis sont majeurs au regard euh, des prévisions démographiques et des réalités économiques tey il faudrait redonner de l'espoir à cette jeunesse pour que ñu gëm seen bopp xam seen bopp xam ni avenir bi fii la loolu nag pour mu pour mu pour mu pour mu pour mu mën a nekk alors il faut régler la problématique liée à l'emploi des jeunes il faut régler les problèmes de mauvaise gouvernance il faut régler les problèmes euh, de chômage endémique chronique et structurel des jeunes mais pour yooyu am na ay secteurs yoo xam ne war nañ ko mën a xoolaat mais le secteur euh, Euh, bi nga xam ni tey moom mooy euh, le secteur euh, informel war nañ ko mën a redynamiser am ay filières yoo xam ne tel que l' agriculture war nañ ko mën a xoolaat parce que tey mënuñoo mënuñoo dund bugg a dund ba pare di rey agriculture di rey mbay mi dëkk bu mel ni Sénégal nga xam ni am na ñaata kilomètres de côte am na am na am na ndox am na air am na suuf waratuñoo xaar mu nawet pour nu pour nu bay il faut aussi ñu xoolaat l' employabilité des jeunes. ba nga xam ne formation yi dañ koy orienté vers des filières d'avenir il faut que ñu xoolaat le numérique il faut yooyu yëpp mais ci kaw mu am volonté politique ci kaw mu am aussi un débat de fond pour que ensemble ñu mën a trouver en efficacité des solutions euh, des solutions idoines mais su fekkee mbir mi dañ ko politiser euh, gis nga yi fi xewoon bërki démb ak yi fi xew ñaata agence ñoo fi nekk ku nekk di xëj wet mais en termes d'efficacité on ne gagne rien et les continuer di dee ci géej gi mm-hmm. ñu wax tuuti ci crise euh, Israël Palestine euh, yëf yi di gën a tàng doo gisee taxawaayu àdduna bi rawatina ak réew jullit yi par rapport ak euh, Palestine mi mel ni lu wéet lool ci xeex bi. waaw d'abord xanaa di ñaawlu li am di di di masaw d'abord le le peuple palestinien maintenant cette crise nag boo xoolee dafay poser une question fondamentale qui agite même la sécurité à travers le monde. cri euh, le problème nag soo xoolee ce mais ce n'est pas seulement euh, un problème politique euh, c'est un problème économique et religieux problème bi dafa nekk au centre des oppositions idéologiques conséquentes des luttes d'influence yi nga xam ne moo am entre entre l'Occident qui supporte Israël et yeneen puissance yi comme la Chine et l'Inde de Poutine la Chine et la Russie de Poutine ñooñu féete faneen donc c'est des c'est des c'est des conflits géopolitiques géostratégiques et géoéconomiques may rappeler ni Israël euh, Israël pratiquement économiquement domine le monde donc problème boobu moo fa ñu am baneen bi les Européens ils ont un cas de conscience avec Israël parce que euh, ba gis nga Israël li ñu daj les juifs li ñu daj ci àddina bi moo tax gisoo dañuy nopp ci lépp lu Israël wax parce que gis nga avec les camps de concentration nazis yooyu yëpp dafa ñëw ba tax na ñoom lu Israël daf dañ ciy dëgg parce que c'est un cas de conscience pour eux hmm. euh, maintenant euh, concernant l'attitude du monde musulman hmm, qui est liée à un ensemble de politiques géostratégiques euh, ci majorité pays musulman yëpp boo xoolee euh, yenn dëkk yi ñi nga xam ni dañoo jege excident du ñu nangoo wax doo leen ci dégg ñu wax ñeneen ñi nga xam ni ils sont plus euh, euh, indépendants da nga leen di dégg ñu ñu ñu ñu naqarlu yi am kaas ni d'accorduñu mais en tout état de cause rek tey li am moom mooy la division du monde musulman mën naa wax ni moom mooy la nekk moom mooy nekk la principale cause des faiblesses des Palestiniens face à Israël question bi nga xam ne nag moom la nit ñi mën a comprendre nan la un pays comme Israël nga xam ni amul lu mu dajul euh, ci àddina bi tëb rek tey song koo xam ni dafu ko dara di ko soño leen nii depuis des années loolu moo tax ñun Horizon Sans Frontières ñu taxaw ni nag vraiment il faudrait que nag àddina bi ñu jóg pour li tamit jeex parce que li am nag je crois que c'est l'indignation totale c'est l'incompréhension totale il faut que ñu jóg saafara ce problème là fois li ko indi le bëri nag la déclaration universelle de l'homme bi nga xamee ni bi ko defee le 10 décembre le mai ñu créé l' état des Palestines en deux mu indi coow li yëpp je crois que yooyu yëpp la war a xoolaat pour mën a défendre les plus vulnérables ce qui se passe est inadmissible il faut que ñu jël des solutions pour indi ay saafara. jërëjëf Boubacar Seye ñu ngi lay gërëm amoon mbégte lool dalal la ci matinalu Rewmi FM tey fàttali ni yow yaa jiite ONG bii di Horizon sans frontières. jërëjëf Fatou Thiam.